ndeysaan mbokki amateur yi combat ngoog combat ngi noonu ci biir combat yi Jacob Balde ak Tony Signor Jacob Balde Jacob Balde ak Tony Signor combat ngoog ñi doon ci arène lamb boolewu leen ndax Jacob Balde moo raw Tony Signor ci lamb bu dee lit avec frappe waaye bu dee ci lutte sans frappe ñoom ñaar ñoo bokk même catégorie attention Tony Junior Jacob da koy mboot Jacob da koy mboot waaye attention Jacob Jacob eh Tony war na ko ndombo Tony war na ko ndombo da koy daan Tony war na ko ndombo daan Tony na ko ndombo da koy eh, Jacob balaa ngaa rëcc xale bii xale bii am na loo xam ne boo Tony daan na Jacob Baldé Tony Junior daan na Jacob Baldé allahu akbar Tony Junior daan na Jacob Baldé Tony li ma leen wax sànq rek bu dee ci lutte avec frappe ñaar ñi duñu ay classe bokk nu sax école waaye gis ngeen ndeysaan ci lutte sans frappe fii ay ndaanaan képp a tase mu ngi noonu Tony Junior Tony Junior ak Ahmed Aaj waaw boobu ñu jàkkaar lool mooy Tony Junior ak Ahmed Aaj Tony Junior moo ngeem moo ngeem lu orange moo féete ndi joor Tony Junior bu ñu fàtte ne moo génne léegi Jacob Baldé daan ko jël bu rëy moog Ahmed Aaj noonu jàppante nañu ca kaw Doni Junior Ahmed Aaj Papa Gueye ak Bulldozer ñu ngi préparé wu Doni Junior Ahmed Aaj dafa ci quart de finale yi ne. ñu ngi ci quart de finale. ñu ngi ci quart dem na demi finale. Papa Gueye Mouma mu ngay préparé wu bëgg Bulldozer. Ahmed Aaj ak Junior. ñu nga di bëree Tony kal na ko Tony kal na ko waaye Amet génn na ca ay eh, eh Tony war na ko ndombo lank na lank na ko lank na lank na ndombo ba waaye Tony fa mu ko jàpp eh Tony daan na Amet aaj waa Tony mii mu nar tey Tony daan na Amet aaj mu nga demi final fekki ngañ seen ñuy xaar diggante Bulldozer ak Papa Gueye Mouma kan mooy daan première demi-finale arbitre bi na diggante Tony Junior ngemboo ngembulu orange li woon ñu càmmoñ ak Papa Gueye Mouma ngemboo ngembulu ñuul woon ñu droite woon di joor takk ay sévière yu bleu ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi ci digg géew ba beneen demi-finale ba arbitre sifflé na ko diggante ngañ seen la baaxe ma ci turu ponkal bi boo paree waaw am solo jërëjëf Tony Junior Papa Gueye Mouma demi-finale ba ku daan fekk ngañ seen en finale Papa Gueye Tony daan na Papa Gueye jël bu rëy allahu akbar eh. Tony Gueye eh, eh, daan na Papa Gueye jël bu rëy allahu akbar final poids lourd baa diggante Tony Junior à droite ngembo ngembulu orange ak ngañ seen à gauche ngembo ngembulu ñuul ñu noonu ñoom ñaar Ngañ Seen Tony Junior Tony fi mu toll nii moom mooy attaqué Tony ak Ngañ Seen combat bi dafa mel dafa nar a gaaw ah Ngañ def na maninam waaye xale ba résisté na Ngañ da ko bëggoon a plaqué waaye Tony rëcc na Tony kal kaluk biti. Gora da koy kalkaluk biti waaye ngañ day génn ngañ day génn ngañ day génn génn da koy kal ngañ génn na ngañ génn na arbitre avertir na ngañ seen ñu dellu si waat ci digg géew ba ngi koy sëkkatal waaye ngañ tànk ba la naan ñàpp jàpp loolu fooram la Ngagne Sène Tony Junior final poids Ngagne Sène Tony Junior final poids lourd Ngagne moo ñu woon ginnaaw ngembo ngemb lu ñuul li Tony Junior moo ngembo ngemb lu orange li ndeysaan xale bi daa jóge ci victoire bu rëy moo tax moom fit Ngagne Sène Tony Junior Ngagne Junior ak Tony Junior ñu ngi noonu déggal Ngagne Sène ak Tony Junior ñu ngi noonu ca digg géew ba benn avertissement pour l'instant ki ko am mooy Ngagne Sène mu amagum benn avertissement Ngagne si gina taxaw Tony si gi waat bi sugne boora Ngagne Sène Tony Junior Tony jëli na wala Ngagne jëli na tànk ya Tony génn na ko Ngagne ngay def maninam Ngagne ngay def maninam waaye Tony mi waaye Tony mi Tony nga koy saxal tànk ba lan moo ca ne ngañ daa bëgg a génn attention Tony weyale na ngañ na Tony ngañ weyale na Tony ngañ weyale na Tony dara amul arbitre ne daa sifflé ba pare eh. ngañ def na bi yëpp Tony résisté résisté ba arbitre sifflé ñu doog a andi ca suuf dañuy bërewaat ñaari avertissement ngañ seen am na benn Tony Junior am Tony am na benn ngañ seen am ñaar avertissement ya ngañ seen am na ñaari avertissement Tony am benn arbitre sifflé genn seen diggante ngañ seen troisième avertissement bi boo ko amee da ngay pert làmb ji cey final poids lourd ba ngoog ngembo ngemb lu ñuul li Tony ngembo ngemb lu ñoom ñaar ñu nga ca ba léegi e eh, Ngagne jël na tànk ba Tony wayale na ko Tony wayale na ko war ko ndombo Tony ko war ko ndombo ay waay arbitre boo puusoon ay arbitre boo puusoon arbitre ay waay arbitre boo puusoon ay waay Ngagne Sène aywa arbitre puusal arbitre puusal arbitre puusal arbitre puusal Ngagne day jóg Ngagne Sène day jóg Tony daan na Ngagne Sène Tony Junior daan na Ngagne Sène Tony Junior daan na Ngagne Sène di jamais vu